ambiance bu ni mel moo amoon ca Medina ci bés bi njabootu sëriñ Modou Mboup xaarixu ànd ak daahira Muhsinina bu ndakaaru dan na màggal ñeent fukki at ak ñaari Mouhamadou xaarixu wuy jee sunu borom subhaanahu wa taala tey jii xew-xew bi am ci kilifteefu sëriñ Moussa Gueye di jarbaatu Seydina El Hadj Abdoulaye Thiaw Lahi xalifatul muslimin ñu daal di fa amal ay ñaan yu am solo sikkar sant yàlla daal di jul tamit ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci noonu la soxna Anna Laye di sëtu Serigne Modou Mboup xaarixu dal di yëkkati ay kàddu ngërëm. di sant daayira yëpp bàyyiwuma Ndakaaru bàyyiwuma bandi yëpp sant naa ñëpp daayira yëpp ñu ngi di sant sama dëkkandoo yi ñuy liggéey fi yëpp yor ay magasin kenn ku ne def nga sa doole ci dëkk. daayira mu fi nii na nag ak Aklu Laay bu Dakar ñoom ñoo dox dëkk bi ànd ak man toppatoo ma. tubaab bakar la bu lii melee nii tey rek ñoom maam Seydi moo waxoon sama maam xaale toog lépp dina la fa fekk di ñaanal sama way wii toog ci chaise bi dend ak Serigne yàlla bàyyi ko fi liñ ci toftal mooy jébbal ay neexal kii di Serigne Moussa Gueye mi fa waxtaan waxtaan bu am solo.